من خمسة أركان في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi seetaan Hadis du jour ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan sunu borom Mawlaana tabaraka wa taala mu boole nu jéggal hadis bi nu leen di indil tey abi umaama yàlla na ko yàlla gërëm moo ko jëlee ci sang bu tedd ba sayyidil awwalina wal axirin sallallahu alayhi wa sallam hadis bi imam tabaraani soloo ko ki nga xam ne mooy albani ne xadis bu rafet wéeruwaay la mbokk yi xadis bi di wax ci rafet jikko rafet jikko ngëneel yi ci nekk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna rajula inna rajula la yudriku bi xusni xuluqihi darajata alqaimi billayli wa daami ab addaami bil hawaajiri nee na nit ki ci jikkoom ju rafet dana ci jëlee daraja yool ay may yoo xam ne nii aji woor jamonoy tàngoor fanaanee naafi la la mu am ci tuyaabaa ci may nit ki am jikko ju rafet dara ju toll noonu lañ koy bindal fa yàlla maanaam mën nga yem ci say farat boole woo ci sax ay naafila man nga yem ci say faratay koor boole woo ci sax boole woo ci ay kooru gàtt nga waaye nag góorgóorlu nga ba sa jikko jikko rafet ak am solo jikko ju rafet te yi ñuy jàmbat ci penc mi yëpp ci waxalante yu bon yi tamante dëmm gi sosolante gi yàqante der yi jëwante bi rambaajante bi iñaanante bi siisante bi yooyu yëpp ay jikko yu yàqu waaye bu jikko yi defar woon ku ne da ngay jàppee sa boroom sa bopp muy sa moroom nga jàppe ko ne sa bopp loo yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom kenn yéenewul boppam wopp kenn yéenewul boppam gaawa a dee kenn yéenewul boppam ñàkk kenn yéenewul boppam rafle ngalawaay bul ko yéenee sa mbokk jullit waaye lu sa mbokk jullit am ci lu baax sa xol bi di gañ-gañi waaye bu dee ku natta safaan moo dal ci kawam nga kontaan ne xamoon naa ko xanaa ba mu yoree lu baax xamoo ko woon xanaa ba mu amee lu baax xamoo ko woon kañ nga xam kañ nga ko ndokk mooy bi mu woppee bi mu ñàkkee bi mu rafle loolu jikko ju ñaaw la ku am jikko ju rafet day yiw day yiw tey yiwadi gi ci penc mi col gu bon gi rafle gi ci jigéen ñi bu ñu soloo ba noppi seen yaram yépp ci biti so duggee ci internet bi léeg-léeg nga gis benn photo da ngay bëgg a xaaxtandiku tufli ndax yiwadi jigéenu jullit Aisha, maam jaara xadi roqi roqiya zeynab nga gis ko ma nga sol ween yaa nga ca biti yaramam yépp mi ngi ko exposé ci biti jikko ju ñaaw la mais am jikko ju rafet da ngay yiw da ngay am kersa waaye ñàkk kersa gi léegi moom moo jur ngay gis jigéen mu yëg ci kaw pëjam ne ma ngay défilé gis góor mu yëg ci kaw ne ma ngay défilé di biju, ni jigéen di dalwati ci xadis ba ñu waxoon góor goo xam ne nii bu soloo nga ne jigéen a solo bu waxee nga ne jigéen a wax su jëfee nga ne jigéen a jëf góor gu dem ba ne góor gu dem ba ne léegi wala jigéen ne lesbienne la nit ku dem ba mu yàgg nga ne léegi franc-maçon la waaw léegi damaa dugg ci loge maçonnique mais jikko ju yàqu moo koy waral diine ju mel ne lislaam ni mu sellee ni mu setee ni mu leeree kenn du ci dugg ba mu yàgg nga génn ci ne da ngay dooni franc-maçon wala nga ne da ngay dooni góor jigéen wala lesbienne wala yu ni mel wala criminel wala yu mel noonu ndax dangay xam ne diine ji nga bokk autorisé wul nit ngir mu dugg ci nu mel mais jikko ju yàqu mooy jur yu mel noonu mooy jur yàqante bi mooy jur kenn ku nekk bu nekkee ci bërëbu liggéeyukaay am ku fa nekk jàpp na ne kooku def koy déranger moo ko tee siiw moo ko tee am salaire bu yokk kon nu muy def mooy na fexe ba mu jugee fa dem jaxase ko ak patron ba jëw ko yàq deram ne waaw day def lii day def laa ba ñu dàq ko nga naan waaw man euh, maga may sóoru xale may sóoru mais maga may daan yu mel noonu ci pénc mi mbokk yi nañ ko moytu nañu yaatu nañu yiw nañu tabe nañu yëwen nañu am yërmande nañu rafetal sunu jikko jikko ju bu rafetee day tax jaamu gi gën a nangu gaaw nangu Omar ndax yëg nga ne bokk na ci liy tax yàlla gën a gaaw a nangu sa ñaan mooy nga fexe ba am jikko ju rafet gis nga borom jikko ju rafet ji borom xol bu set bi kooku man naa am borom jikko ju ñaaw ju fanaanee naafi la yendoo woor ñaan yàlla te du ko nangu moom mu fanaanee nelaw yendu di lekk ka naan te bu ne allahuma yàlla nangul ko ko lan moo tax yàlla mi ngi sukkandiku ci jikkoom ju rafet dañ ne tur yàlla booy zikkar fexeel ba jikko ko su dee da ngay zikkar yaa rahman yaa rahim te amoo yërmande du la wuyu su dee da ngay zikkar yaa razaq yow yàlla miy wërsëgalaate te nay doo compal kenn yàlla du la gaa wuyu ca turu waaye bokk na ci li gën a gaaw yàlla wuyu la ci turam mooy nga fexe ba jikko woo turu yàlla yi nga xam ni moom ngay wooyee sunu borom kon yenent bi nee na jaam bi dana jëlee ci jikkoom ju rafet dara darajey aji naafila guddi ba mu jeex yendoo woor te nag bil hawaajiri la wax jamonoy njolloor naaj bu tàng yàlla yàlla rafetal sunu jikko yàlla yàlla rafetal sunu jikko yàlla na yàlla rafetal sunu jikko yàlla yàlla musal nu ci jikko ju ñaaw ndax baaxul baaxul dafa yàq nit dafa tëj nit yàlla ñu si yàlla musal mbokk yi lii moo nekkoon xadiisu tay bi du ñaan suñu borom mu defal ñu ci déggal topp dund ak dëkkuwaay waruwaay koddaay yàlla ñu ko yàlla yombalal yàlla na yàlla may ñu fan nu gudd ànd ak wér gi yaram defal nu mujj gu rafet yombalal nu sunuy càkkuteef yi fajal nu sunuy xaajo yi defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira wërsëgal nu bu ñu ñu yóbbaale kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla defar suñuy affaire yokk suñu chiffre d'affaires may nu yaram wu sedd bu ànd ak xol bu sedd yàlla mën na ko am na ko ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defal ko sama caméraman bi defal ko mbokk yi nuy seetaan defal ko mboolem ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ba subaak jàmm ci beneen xadis wasalaam وعيدا ومن ألقى بني الإسلام على خمس